ñu ngi ci ñu ngi ciy liggéey nee naa leen lu ñu am ci xam-xam dinañ ko ci indi lu ñu am ci alal dinañ ko ci indi mhm. lu ñu am ci nit mooy électeur dinañ ko ci indi te posé ñu benn question benn condition ah, mais tey posé wu leen benn condition loolu ñu benn condition mais certains ne peuvent mhm. pas ne pas y voir mhm. un parce que tey jii ñëpp fa la ñu jublu euh, nee nañ vous avez raté le train en 2022 ci législative yi nee nga le peuple a toujours raison euh, am na leen loo wax aussi que ne sa programme sa vision en politique. lu bëri ñoom épouser nañ ko ci seen programme bi. bu doon beneen contexte la xëy na di nga wax que ne plagiat la wala dara mais danga nga préféré am bonne foi. Mhm. Euh, da nga préféré euh, ne da ngeen a bokk gis-gis. tout à mais euh, on vous voyait pas en fait. ànd ak ñoom nee nga sànq ne tali xuloo xuloo la. mais niroowu leen lu. ñàkkul ne gis nga sa gis di si réseaux sociaux yi. depuis ce choix bi lu bëri ñu ngi koy teg sa der. waaw mais ñooñu ñi niroowoo ak ñoom. Mamadou ñooñu. Mhm. ñi di wax ci réseaux sociaux yëpp boo bëggee dinañ ci ñëwaat. ngeen baal ma le terme que je vais utiliser n'est pas négatif mm -hmm. mais c'est les prétendants éconduits ah, les prétendants éconduits ah. mais la réalité euh, mais ñu bëggoon nga ànd ak ñoom nga bañ ko en toute modestie loolu kese la d'accord demal nga def le profilage dañuy di dal ci kaw Abdourahmane Diouf kaw awale temps yëpp mais c'est des gens ils auraient aimé qu'on soit avec eux hmm. mais loolu la waxuma ko parce que dama teg sama bopp fu ma yeggul mais demal nga def la profilage ñooñu kese ñooy wax ñoo ma fi indil ci foofu loolu ngeen fi doon commencé wax dinañ ci ñëwaat <laughs> parce que accepté ñu ma def choix boobu mais ñoom dañ def seen choix est-ce que mas nga dégg waa benn awale bu wax ci seen ay choix ñoom mm-hmm. bu dee waa Benno Bokk Yaakaar du ñoom ñoo tas réew mi pendant douze ans mu des lu dul dem ñu nekk di langaam bëgg a ñëdd bool bi tu penses que ñooñu j'ai des leçons de morale à recevoir d'eux waa Benno Bokk Yaakaar ils parviennent même pas à régler le problème de leur candidature teg candidature Macky ne maa ko waxoon waxatuma ko suba mu ne tey la ñuy door a décider à dix jours de l' élection que ne moom la léegi ñooñu man ñoo may jox ay leçons ci kan laay choisir. mais on peut dire que vous avez été choisi te ñooñu. Mm. seen patron yàgg na ma bëgg a choisir. waaw ah, loolu ah waaw ñoom ñoo la ko gën a xam. Ah, loolu wax loolu moom seen patron yàgg na ma bëgg choisir waa léegi parce que demuma fa. il faut nag léegi ñu créer Sénégal loolu la ñu war a bàyyi. man déggoo fi ma commenter choix kenn. mais mais suñu choix. Oui, juste... on l'a fait suivant des principes démocratiques yéen ñëpp gis ngeen ko transparent moi je suis pas un leader buy imposer une dictature waaye léegi ñoom ñoo gën a muusoo awale wala ñoom ñoo gën a muus waa coalition Abdourahmane mais dana rejoindre le peuple ci vote utile bi ñu bi ñu defoon en 2022 parce que xam nañ ne Diomaye dafay dem maanaam il a de fortes chances de réelles chances de gagner cette présidentielle nga bëgg a c'est ce ànd ci mouvance boobu parce que seen troisième voie bi ngeen proposé woon en 2022 jàllul tey jii nii vous avez le choix entre ñi fi nekk mhm. tey jàpp na jeexal nañ ak beneen côté bi ki fa ëpp chance muy muy Bassirou donc moo tax mënuñ ci gis mënuñ ci un choix opportuniste waaw mais pourquoi mais man 2000 2022 mais xamoon naa ne Yewwi Askan Wi moo fi ëpp doole ci opposition hmm. man xam na loo waxoon ne woon nga doo cuubu waaw <laughs> du ma cuubu mhm. xam nga lan mooy différence parce que dama amoon sama yoon mais législatif bu ma demoon ak Aar Sénégal mhm. ñu téye ñu parrainage mais di nga dem feneen il faut pas que les gens oublient ça aussi ah. bii nii bu nit ñi fàtte ne Abdourahmane Diouf candidat la. candidat oui. vous souhaitiez partir de. ah oui oui joguma rek ne damay dem fële et non candidat la liggéey mm-hmm. ci ba fi ma ci toll. conseil constitutionnel def li mu ciy def loolu moom jarul ñëw lu paase la. <laughs> mais. le choix le choix. am na lu ñu ci wax. te hmm? ne da nga bëgg une chose et son contraire demandé woon nga que élection yi processus bi taxaw ñu leeral mbir mi après nga bokk ñiy dénoncé li nga xam ne mooy euh, décision de reporter bi président Sall. waaw loolu mooy a yàq rek léegi nañ <laughs> delluwaat ci chronologie bi. dañ lay tuumaal bëri dinañ ci ñëw ci chapitre tuumaal bi moom dama ci bëgg tijji <laughs> benn chapitre bu ci kanamee wax. <laughs> Uh-huh. parce ñi nga xam ne dañ ma bëgg a atteindre. Mm-hmm. te gisuñu ma wax lu ñaaw def lu ñaaw dañuy jël samay wax di ko ñoddi. Mm-hmm. boo ñëwaatee ci report bi man la ma ne woon sax du ci waxaat mais puisque yaa ngi ça veut dire am na sénégal yoo xam ne ba léegi peut-être leerul seen bopp mais man jurist la seen télé bi seen télé bi rek li ma fi wax bëri na de sono <laughs> rek ma war a <laughs> commencer jot ay droit d'auteur <laughs> mhm. Mamadou Awa est-ce que nekkoo woon sax ci studio bi bi may toog fii 9 ou 10 mars 2019 nekk porte-parole candidat Idrissa Seck ngay wax sa dëgg ya bi ma naan ana caméra bi. tu te mm-hmm. rappelles. na nga fàttaliku bu baax a baax. ma ni un Idrissa na génne wax ak waa këram. je m'en rappelle très bien. deux ma ne man Abdourahmane Diouf. je reconnais la victoire du président Macky Sall. Mm-hmm. à partir du moment où conseil constitutionnel joxe na. résultat bi. Mm-hmm. ma yokkal leen ci ne leen candidats yi 2019 mënoon nañ def un recours populaire mooy wàcc ci mbedd bi mhm. ils ont décidé que duñ ko def mhm. c'est de la sagesse dama ànd ak ñoom mhm. mais ils avaient la possibilité de faire un recours judiciaire dem conseil constitutionnel ils l'ont pas fait mën na leen nag yow boo demul ci mbedd bi demoo ci juge bi da ngay reconnaître que ne kii fal nañ ko fii laa ko waxee cette TV mu indil ma problème ak ñool ñool yu dul jeex à l'époque ci sama parti ak sama coalition parce que instant boobu jeune ne pouvais pas défendre l'inconséquent et j'ai assumé tout autant tout opposant que j'étais que ne Macky fal nañ ko hmm. mais ñi bañoon ne Macky Sall faluñu ko jour boobu ñun fan lañ mujjee ak Macky Sall fan lañ mujjee ak Macky Sall ñi waxoon ne reconnaître ñu waaw ñi waxoon ne reconnaître ñu victoire Macky Sall man defaat naa cinq ans mandat bi ba jeex demuma ci Macky Sall tooguma ak Macky Sall liggéeyuma ak moom mais jour boobu ñi waxoon ne ànduñu ak Macky Sall ba may indil ay ñol-ñol mais ñoom ñoo dem ànd ak Macky Sall te ñoom ñoo waxoon ne reconnaître ñu ko je rappelle cette anecdote pour wax la man j'essaie d'être conséquent